eurobond bi ñu def. Mhm. c' est cinq virgule cinq pour cent. mais euh, combien. avec un taux de maturation beaucoup plus long. oui mais bii nii bii nii alors qu'on a des ressources euh, euh, à, à venir euh, pétrole gaz alors qu'on sort d'une brillante élection on s'endette avec un taux de 7,75 pour cent et un taux de maturation moins long. Euh, bàyyil rek ma yeggale sept ans bàyyil ma yeggale rek. donc non bàyyil ma yeggale ma ne sur cette question là c' pas le taux qui est gênant. qu' pas le taux qui est gênant. il est relativement élevé mais c'est le contexte du marché avec le rendement sax dina ko ëpp tuuti est pas ça le problème. après il y a la maturité sept ans sept ans c'est un peu court mais. yow tuyaal yi wax nga ko dëkk boo am pétrole yow naka la ñu décider rembourser est-ce que décider wu ñu rembourser de façon anticipée yow yaa ngi am pétrole tu attends des revenus que tu n'as pas encore nga ñëw jël nguur gi fekk fi situation boo xam ne bii amoo xaalis ce système li nga fa fekk li nga fa fekk munoo inventer leneen pour fonctionner danga koy jël. ñàkk pexe mais boo ko jëlee. ñàkk pexe du pexe de Boubacar. yow yaa ko wax. mais déglu rek ma pare non da nga bëgg wax rek dama la wax ne pour man sept ans c'est faible mais bu fekkee sept ans la c'est plus facile à rembourser que bu dee vingt ans la wala seize ans parce que yi gën a koy fi seize ans la ñu yow boo demee leb banque def vingt ans boo bëggee def remboursement anticipé tu vas payer plus cher yow bu fekkee danga am revenu yooy xaar. da nga da nga nekk ci situation goutte war a faire face à des dépenses nga xam ne boo demee su le marché obligataire régional doo am xaalis bu doy pour faire face à tes dépenses urgentes mën nga ko jël nga négocier pour réduire taux bi mais benn précaution ngay jël mooy comme taux yi day varier boo koy transformer da ngay def da ngay négocier un taux maximal boo xam ne du ko dépasser parce que bu taux bi yokkoo li ngay fay day gën a bare ils l'ont négocié ils sont à 6,4 pour cent en transformation et ensuite yemuñu foofu ils ont revu les taux yi nga xam ne les eurobonds yi régime bii passé jëloon nga xam ne dafa war a am maturité bii 2028 bii 2033 dañ ko réduire def fa benn affaissement bu ndaw tout barewul trop c'est 0,03 pour cent ils ont bien fait ils ont limité les dégâts mais et loolu loolu pour man taxul eurobond baax. souvent léegi beneen problème bi ñu am. Mhm. c'est l'utilisation. waaw d'accord foofu laa ñëw souvent l'utilisation moom. su fekkee ne utilisation comme ni ñu ko waxee parce que soo amee xase ba am sa eurobond te yaa ngi am un déficit budgétaire l'ancien régime avait prévu de financer le déficit budgétaire eurobond ça c'est une pratique qu'il faut pas encourager c'est c'est une pratique qui ne loolu suul bukki la suulu bukki mais ku nekk dans une situation comme ça yow tu viens avec un schéma mënatoo ko mettre en œuvre nga ñëw fekk fa moteur diesel fekk fa diesel fekk fa huile yaa ngi bëgg a def moteur essence amagoo sa moteur essence doo jël gazelle bi ak huile bi nga utiliser doxal sa moteur mais xam nga les économistes ak euh, ñi nga xam ne euh, dañuy suivre la matière économique ñoom ñëpp sa s'accordent à dire que c'est une forme d'endettement très risquée pas commune deuxième chose ñu ne surtout nag destination bi bu fekkee ne da nga ko jël def ko ñu ne souvent dañ ko war a jël def ko dans des projets d'infrastructure euh, nga xam ne dina dina dina même pas des projets qui produisent surtout wala euh, wala pour financer l'emploi en 2021 Euh, gouvernement Macky Sall bi ñu koy def ñoo bëggoon financer après la crise de 2021 ouais, ouais, euh, la problématique de de l'emploi <laughs> mais nga jël ko pour wàññi déficit nga jël ko pour payer euh, ton endettement nga jël ko ñii dañ ko jël pour financer les dépenses courantes point final est-ce que tamit loolu tamit gënul accroître Euh, risque bi est-ce que warul tamit gën a tax ñu alerter leen. non déggoo lu ma la wax dama ne la loolu laa lay wax rek toujours euh, ce montant la kii est relativement faible quatre cent cinquante milliards c'est relativement faible pour le financement du développement. ça fait à non, peu financement du développement. non dépenses no non loolu laa expliqué. c'est-à-dire que si tu regardes le budget global du pays si tu euh, les capacités de mobilisation d'argent, ce montant, ce n'est pas un montant très élevé. Est-ce que ce montant remet en cause l'équilibre global de notre budget Pour moi, il n'y a pas de péril en la demeure. Ça ne veut pas dire qu'il faut encourager ce type de mobilisation. C'est une contrainte financière. Il faut aller vers le financement à partir du levier des ressources naturelles il faut aller vers le financement nga def sa recet rendre plus performant sa douane sa sa sa impôt et tout nga élargir assiette bi ça c'est les mesures qu'il faut prendre et c'est des mesures qui sont dans le programme de gouvernement mais parce que jël nga eurobond ñu ne la yaa waxoon eurobond baaxul kon ku jël eurobond baaxul ah lan nga bëgg ñu wax. mais loolu laa lay expliqué li ci bon dama ko wax. li ci bon waaw mais li nga bañ ci eurobond yëpp mu ci eurobond bi. mais déglu ma la <laughs> kenn mënul fexe ba mu nekk un chemin de pré de pour un pays sous-développé kenn mënul fexe ba mu nekk un chemin dont il faut faire la promotion moi j'ai jamais fait la promotion de ça je n'ai pas changé. mais mais mais mais Boubacar. donc il faut éviter de recourir à ce chemin.